seen émission li ci jamono lal waxtaan dolli yaakaar samedi ju dale ko juróomi waxtu ci ngoon fenn rekk la Afia FM 93 point xayri ci Afia FM woote leen ci 88 628 05 05 88 628 05 05 ak Afia FM waxtaan gindi askan. waaw ko di leen gaar ko di leen gaar su ko newul gaar dama yegg sooy gaar waaw. auzu ah, rajiim bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil alhamdulilahi rabil alamina ñu ngi santaat yàlla bu baax di julli di sëlmal ci sangu sang yi bi ñu yàlla mayeetal ak fekke ba nu ñëwaat àndaat ak yéen ci seen émission bu mag bi di li si jamono li si jamono nag ko def rek tubarkàlla jamono ju nekk ak la cay a xew dañuy toog rek euh, di ci waxtaan ñi nga xam ni ñoom la yàlla def ni seen i xel màcc na ci côté boobu wala ñu di ca yëngu ba nga xam ne daal am nañ ci expérience su àddina dañuy ànd ak ñoom ci loolu di ci waxtaan tey nag euh, ñuy indi rek li nga xam ne mooy euh, Facebook bu ñu waxee réseaux sociaux yi dañ koy wax de manière na ay euh, pàcc yoo xamante ne tey jii moom lañ fas yéene waxtaanee muy Facebook bi di waxtaanee TikTok ak li nga xam ne tamit mooy mariage muy loolu nga xam ne Facebook daf koo ëmb ah, di jaajëfal rek euh, Amadou bi nga xamante ne toujours moom ay defal montage bi tey nag dafa dem rek résumé ma ko moom defal ma daal defal ma fa réseaux sociaux ak mariage waaye loolu yëpp rek euh, ba tey am na solo xanaa rek di nuyu ñi nga xam ni ñoom ñooy baaxoo di diglu rajo bi saa su nekk rek bu samedi jotee di h ñu bàyyi lépp lu doon def rek ah, di diglu rajo Afia fréquence bi di 93 point zéro kaddu gaa ngi bàyyeekoo fii ci cité millionnaire plus précisément studio Souleymane Ba ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax xayri ngeen àndal ci waxtaan bi waaye duma ci wet benn yoon dama ciy ànd ak euh, Amadou ànd ci tamit ak euh, euh, sama ay invité tubarkalla macha allah comme ni ma leen ko waxee woon léegi-léeg di jégalu aussi ci retard bi li ko waral mooy dëkk bu xat bi ak retouru tabaski bi xam naa ñu ci bari xar yee leen tee leen a ak yu demee noonu waaye lu ci mën di doon rek ñu ngi leen di jégalu auditeur ak auditrice su Afia di dem si hôpitaux yi rek di nuyu di seet malaat yi di leen nuyu bu baax leen ñaanal yàlla yàlla fëgg seen bopp rawatina ñi nga xam ne dañoo feebar ci coronavirus bi ak ñi nga xam ne moment bii ñu toll ñu leen mettre en quarantaine pour di xool ndax am nañ feebar bi wala amuñu ko ñu leen ñaan rek yàlla buñu gis dara ci ñoom te yàlla delloo feebar bi ginnaaw mbas mi yàlla ko yàlla delloo ginnaaw euh, baa ngi fii na a baax te takk na lu nekk loo xam ne na ñëpp ñaanandoo rek jël ci ay mesures yu mat sëkk ko defee yàlla mën cee dellu ginnaaw moom mi nga xam ne moo ko wàcce muy ay mbiram bu ñu paree ci loolu rek tamit dañuy dugg ci prisonniers yi rek ñoom tamit ñoom ñi nga xam ni fa ñu nekk rek la xam nañu ay béréb yu xat yu tàng la ñu daal leen di nuyu rek ñoom tamit daal leen di sargal ñaanal leen yàlla yàlla génne leen foofu noonu rek la ñuy def daal di nga xam ne rek jamono ji ñu toll ñoom ñëpp ñu ngi atkché wu ci 93 point 0 di ñu digloo fii ci afia bi ñu ngi leen di bàyyi xel ah euh, kon noonu rek la ñuy daal def daal di dugg rek ci nuyoo bi ak invité yi euh, daal di nuyu ki nga xam ne mooy Amadou di wax ne am na ji koo xam ne nag dafa tardé Serigne du Niang ah euh, egg seegul dama koy wax nag buñ la invité te yoroo oto da ngay gaaw a jóg parce que circulation bi ak ñoom seen euh, da nga koy sóor bu baax Amadou moom de mooy boroom euh, li si jamono waaye tarde rek lay def. Afia FM yëpp. Mhm. di baalu àq ñëpp di leen baal àq di ñaan yàlla lépp luñ fi jaamu yàlla nanguñu ko. Mhm. yàlla nanguñu suñu tabaski di ñaan yàlla atum 2020 li ci jot a xew yëpp yàlla bu mu ñëwaat. amiin atum déwén yàlla gën fuuf atum déwén lay. li bu naree bu naree ñaaw yàlla mel ni ren ren moom yàlla bu mu ko mel. Mm-hmm. yàlla nañu am at bu gën. ñii mm-hmm. li ñu lay wax mooy ñuy feebar ci ci mbas mi. Mm-hmm. yàlla yëkkati leen delloo leen seen i njaboot ñi ci jot a ñàkk seen bakkan yàlla yore leen xarit àjjana. ñoo ñoo ñoom fa fekk ak ña ko fay fekk ñëpp. di kontaan di ñëwaat ci émission bi li ci jamono. émission bi nga xamante ne émission moom importance la. te ñëpp a koy déglu. di ñaan yàlla lépp lu ñu fi wax rek mu doon Euh, ñu bàyyi rek euh, ki nga xam ne moom nga euh, waaw kooku mooy Amadou di liggéey ci mbirum portable ku ne xam na ko ci mbirum portable lay liggéey macha allah xarañ ci trop kon yaakaar naa ne bu ñuy wax ci lu jëm ci réseaux sociaux baax na moom tamit ñu ànd ak moom ci mbir moomu. ñuy dalal tamit suñu xarit Babou waaw moom tamit di liggéey ci mbirum TikTok. kon tay moom la ñuy waxtaanee gis nañ moom tamit dafa nekk ci Facebook bi di def ay TikTok yu am solo nit ñi di ko aimé mu bari ay partage trop ak ay aimé yaakaar naa ni ñi koy déglu après moom dina wax euh, ni mu koy doxalee ak yépp tey ji moom tamit moom la ñu àndal ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay dolli la nuyu yow soxna Xayru. Mm-hmm. fi nga daanalee rek foofu lay tàmbalee waxtaan bi. Mm-hmm. mooy dafa am ñoom ci ne kenn war leen fàtte si kaw suuf. Mm-hmm. mooy ñi ñu jiitu Barzak. ak ñi nekk ci hôpitaux yi. Mhm. ak ñi nga xam ni caabi dina leen féetee ginnaaw. Mhm. Mhm. ndax soxna xayu yëgoo ne que. képp koo gis sa suuf. am na soxla. ndax yëgoo ne que sa soxla ki nekk si biir. soxla bi nekk ci mbedd bi. ka nekk ci biti rek moo ko mën a fajal. waaye ki nga xamante ni moom. dafa am tawat. ki yàlla roof wérgu yaram moo ko mën a fajal soxlam waaye ki nga xamante ni dafa génn àdduna kenn rek moo ko mën a fajal soxlam mooy ki nga xamante ni mu ngi waaye ki caabi féetee ginnaaw kenn rek moo ko mën a fajal soxlam mhm. mooy ko am liberté ko ñooñu bu ñu leen fàtte mhm. waaye nag ñu ngi nuyu ñëpp di mhm. ziyaar ñëpp di baalu àq ñëpp xew-xew bu ñu jóge mooy tabaski incha allah ñu ngi siy ñëpp di si baalu àq ñëpp tamit di nuyu ñi nga xamante ni ñoom laa bokkal waxtaan bi mooy soxna mooy euh, sëriñ amadu ak ñi nga xam te ni fekk naa leen fii mhm. moo xam te ni ñu ngi si ak kii yéex a ñëw tamit ñoom ñëpp maa ngi leen boole waale si nuyoo bi tey nag da nga tànn nag thème bu am solo mhm. mooy réseaux sociaux et mariage xam naa bu ñu demee ba si biir incha allahu rabbi mhm. dinañ si dinañ si waxtaan gën ko yaatal waaw te nga xam ne nag fii ay borom xel rek a fi nekk kenn gënul ëpp xel kenn waaye muusante bu ëpp rek moo fi nekk waaye ak borom xel maa ngi lay delloowaat kàddu gi bii ñu ko fas yéene waxtaane li nga xam ne mooy euh, Facebook bi ak li nga xam ne mooy mariage ak euh, daal euh, réseaux sociaux bi dañ koy wax de manière générale mais pour faram-fàcce ko rek dugg ci li nga xam ne tey moom la bëgg a waxtaane yaakaar naa ni ki nga xam ne moom lañ fi war a ànda léegi muy sëñ Modou Niangoon tamit artiste comédien la yaakaar naa ni ci jamono ji ñu toll ko wax TikTok sa xel dina dem ci li nga xam ne mooy mbirum artistes yi ah, ñu gis baax a baax moom mi nga xam ne mën naa ni sax tey moo coordonné émission bi macha allah sonn ci loolu nag euh, fu nekk rek tubaarkàlla mu utal ma fa invité pour rek ñu mën a waxtaane li nga xam ne mooy TikTok ndax sama gars yi ñime nañu ñime nañu ñime nañu Facebook bi de ñime nañu réseaux sociaux waaye ñimewuñu ñimewuñu micro yi pour toog expliquer li nga xam ne moom la ñuy doxal euh, ba tax na rek mbokk yi di wax ni ñu ngi ànd ak yéen ci Afia fréquence bi di 93 point 0 waaye mën ngeen ñëw oo ci 88 bu fekkee émission bi da ngeen ci bëgg a dugg di participer rek da ngeen ñu ci 88 628 05 la euh, euh, euh, damay njëkkee ci Amadou d'abord pour ñu waxtaan ci li nga xam ni mooy TikTok yow yaa ngi koy gis yaa ngi gis TikTok yi ndax yaa ngi yaa ngi koy seetaan yaa ngi koy aimé wala nu yow nu mu fa deme noonu ci sa côté. waaw sama côté moom TikTok. Euh, dama koy seetaan dama koy suivre bu baax a baax mais su ma ko suivre damay xool li nga xamante ne maanaam moo ci am njëriñ man li ci ëpp ci la man fépp fu may dugg loolu laa ci ëpp lu ma ciy xool damay dugg réseaux sociaux yëpp parce que tam boo nekk ak jamono da ngay ànd ak jamono di xool ci nekk mais TikTok application la boo xamante ne chinois ñoo créé indil ñu ko pour ñu ci maanaam divertiru temps bi ñu ci nekk ci divertiru ñoom ñu nekk ci liggéey loolu tam mu ngi ci mais tamit application la boo xam c'est très intéressant parce que tamit euh, am na lu bëri loo xam mu nga ko ci jàngee. Mm-hmm. parce que tey boo seetee réseau réseau boo gis bu ne. Mm-hmm. am na ci am na njëriñ am na inconvénient am na avantage. Mm-hmm. mais ñun la plupart boo seetee ñun euh, comme euh, Sénégal. liñ ciy jël ci avantage bëriwul inconvénient lu ñëpp lu ñuy utiliser. loolu moom doon na loo xamante ne tey jii bëggoon naa def jàngat bu yaatu. Mhm. surtout réseau social bi ñuy wax TikTok. Mhm. boobu xam naa ne moom incha allahu rabi moom. Mhm. foog ñu wax ci loo xamante ne tey jii bu ñu fi jógee. jeune bu nekk dina ci dina ci conscience. dina ci conscient te dina xam après lan la ciy def. lan la ciy def. waaw bu ñu ñëwaatee ci Bambo. Bouba euh, Bouba yow ngay liggéey ci mbirum TikTok. comme ni ko Amadou waxee léegi ku ne xam nañu création bi benn chinois moo ko créé depuis 2016. mais bu ñu xoolee ni mu dominé ci jamono ji. ah mu mel ni am na ku nekk ci ligne bi de moom daf ñu dog suñu waxtaan waaye bàyyi ñu jël ko rek après ñu ñëwaat mhm. allo. allo allo. waaw. waaw salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw soxna si na def. maa yaa ngi si jàmm. danga ngi si bëggoon a ci émission bi. waaw. waaw Aïcha. kooku àll Amina euh, da nga jaawale ñun ñoo ngi fii ci rajo Afia euh, macha allah xam naa ni dafa dafa jaawale. waaw baabu bu ñu waxee tey ci mbirum TikTok yow nga nekk ci di ci di ci liggéey comme ni ñu ko waxee rek euh, mu nekk benn application boo xamee set ni dañ ko dañ ko nommé une application de partage de video et de réseautage ah social lancée au en septembre 2016 mu mel ni Sénégal ñoom dañ ci soog a jot parce que boo xoolee dafa dominé en 2019 ci la dominé donc ñu di ci gis lu nekk yow soo yow mi nga xam ne yaa ci liggéey tey boo ñu indil beneen définition bu gën a bu gën a bu gën a bu gën a bu gën a leer Euh, lan nga ñuy wax ci TikTok. waaw soxna Xayru euh, question bi nag dema si euh, sawar a tontu lool. Mhm. comme lu ko sunu xarit bi Amadou mhm. waxee woon parce que mhm. moom nee na moom réseau social bu mu dugg si réseaux sociaux yi daf siy xool lu si lu koy njëriñ ak li nga xamante ni moom mooy essentiel bi moom nee na moom loolu rek la si xool te effectivement parce que TikTok au début da nga ko créé woon uniquement pour euh, pour ay challenge pour divertissement mhm. pour li nga xamante ni da ngay imiter ki nga xamante ni peut-être sa idole la mhm. wala ki nga xamante ni dafa am ay image wala ay paroles yi nga xamante ni dafa reetaanlu mhm. léegi moom nga koy kii pour ñi nga xamante ni ñoom dañuy liggéey du euh, de du matin jusqu'à dix-huit heures du matin pour ñu mën a ko def divertissement pour ñu mën ko passer seen temps mais léegi nag parce que euh, au début avant TikTok doon am. amoon na li ñu doon wax Skyrock. te Skyrock tey boo xoolee boo xool tey amatul. ñu dem ba si biir ñu créé li ñuy wax Facebook. ñu ñu dem ba si biir biir biir biir ñu créé li ñuy wax ay Instagram. ay Twitter. mais jamono ji ñu toll see si monde actuel bi TikTok daf leen dominé. daf leen dominé si côté yëpp. te di si gis nag façon bu ne. di nga si gis ay challenge. di si gis ñoo xamante ni dañ si wane seen bopp. da nga si gis ñoo xamante ni ñoom tamit dañ si euh, véhiculer ay message yi nga xamante ni nit ki nga xamante ni moom message yi nga xamante ni dafa important moo leen tax a jóg ñoom moom la ñuy suivre di ko di ko di ko seetlu parce que boo seetee ba seet sax TikTok dem na bam te léegi ñu bëri sax ñoo ngi koy def léegi lieu de commerce lieu de commerce léegi mu ngi si am ndax am na ñoo xamante ni tey TikTok moo tax ñu xam leen TikTok moo tax ñu xam seen ay produits TikTok tey moo xam tey ñu xam seen ay image mm-hmm. TikTok tey moo xam tey tey moo def tey ba ñu xam leen bañ leen invité fu nekk partout dans le monde. Mm-hmm. ndax grâce à TikTok. Mm-hmm. yaa ngi déglu soxna Khayro ma ne grâce à TikTok. Uh-huh. ba tax na ku nekk xam na ki nga xam te ne mosoo koon gis mosoo koon xam. te TikTok tey tax na tey ñu xam ko. man nag li ma dugal si TikTok. du dara. dama toog bés rek ma ne ma am ma am benn vidéo léegi ma ne xaaral ma dugal vidéo bi noonu rek. parce que TikTok bon comme li nga wax rek depuis euh, presque am na. Mhm. mais Sénégal dafa mel ñu ngi si doog a jot. Mhm. te sénégalais moom lu mu roy rek. dàq ko dëgg yàlla dàq ko. Mhm. loolu la ñu yàlla defal te kenn mënu si dara. léegi nag bi ma si dugalee sama première vidéo. ma gis gars yi di aimé. ma gis ba gars yi di aimé ma gis gars yi di ma demandé ay demande ñu may message fu ne. di ma woo fu ne. di ma wax ba ñuy jël sama ay vidéo di envoyé fu nekk di ko def ay statut mhm. ba ay nit di ma woon ne ma man de gis naa si statut ay dëkk sàngam nit di ko def ma leen gis nga de mhm. waaye lu bon taxumaa jóg mhm. dama si jubloon rek pour véhiculer pour véhiculer ay message bu bees comme li ma ko waxoon tey suba rek parce que am na message noo koy véhiculer nit ñi surtout jeunesse bi yow vidéo boobu nga reprendre woon ban genre vidéo la woon non boobu reprendre ma ko woon boobu euh, dama waxoon ne que jigéen gàcce la ah. si yow sa jëkkër tiim la xas la waaye jigéen yaay dàq saxasu ëllëg waaye dafa amoon si magu démb bi kenn ku tiimam soxnam ni ko mhm. bëccëgu tey bii sa atraku maaku min xayri wirdin mhm. wa zaaka li kasratil wurraadi fiihi mu ne soxna si mhm. bëccëgu tey bi gedd naa la dootuma rot si sa ndoxum teen mu nekk ndax subanti baak yi dal ci ndoxum teen bi mu ne ko njortu naa ne que ndëxan na sa ndoxum teen ba tax na gedd naa dootuma rot si sa ndoxum teen waa ji dafa amoon soxna bi nga xam te ni dafa mm-hmm. nekkoon la folle du village mm-hmm. jigéen la bi nga xam te ni téewul boppam mm-hmm. góor bu nekk mu bëgg a ànd ak moom ba ko borom këram bi yëgee ne ko jabaram ji moom téewul boppam si la ko wax wax jooju nag mu nekk subanti baak yi dal ci ndoxum teen bi mu nekk maanaam sobi subari si dal si sa kaw mooy góor bu nekk nga ànd ak moom sëy ak moom mu nekk loolu njort naa ne que nëxal na sa ndoxum teen mu nekk loolu dama jàpp ne que jigéen bu am jëkkër am far mu nekk dama jàpp ne jumbax bi dootu si ëmbati nit bu baax. Hmm. nit bu ñuy tiitaroo ëllëg ak doomu pénc. la loolu nag le message message boobu laa doon véhiculé moom nag laa véhiculé yàlla def si macha allah. Uh-huh. ma am si ay vues. am si ay soppe yoom ci ni musuma leen woon xam. Mm-hmm. musuñu ma gis musuma leen woon gis. Mm-hmm. yàlla jaarale sama xamal ak ñoom si TikTok. c'est mon premier vidéo boobu la woon. macha allah xaaral ma nuyu sëñ Modou rek daal di ñëwaat ak yow ci euh, plateau bi di wax rek ñu ngi ànd ak sëñ Modou Niang moom tamit nekk un grand artiste yaakaar naa ni ñu bari xamee nañ ko ci euh, télévision bi euh, ci macha allah ci sketch bi ak liggéey bi nga xamee setti moom lay def mu nekk liggéey bu remarquable sëñ Modou ñu ngi lay nuyu. Oumy Khayri fay naa la. di kontaan bu baax nag ci ñëw gi nga ñëw waaye di ñaaw lu tardé gi nga tardé ndax comme amoo oto ba ngay jóg mënoon ngaa teel a jóg. teel naa jóg damaa dox taxam boo xoolee nga xamante ne Medina la doxee ba fii waaw foog mu tardé euh, di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, di joué sama gars yi nga xamante ne ñoom laa fi fekk maa ngi leen di ziar di leen nuyu mm-hmm. Euh, di sant bu baax Oumy Khayri mi nga xamante ne moo ma invité ci émission bi. Mhm. Euh, di ko rafetlu mhm. di di suivre émission bu baax a baax macha allah di gis liggéey bu rafet. Mhm. bi nga xamante ne am na solo nga xam ne yaa ngi koy def fii. di la ci jaajëfal bu baax a baax a baax a baax di nuyu soppe yi aussi. di nuyu waa Afia. Euh, waaw 93 point 0. li ci jamono maa ngi siyaar sama gaay yëpp di leen bëggee. di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah comme ni nga ko waxee noonu rek nekk na lu am solo di la wax ni la bisimila ci émission bi di fàttaliwaat mbokk rek mën ngeen ñëw woo ci 88 gaa ngi bàyyi ko fii ci Afia fréquence bi di point 0 waaw Babou da nga wax lu am solo ci li nga xam ne mooy mbirum euh, TikTok xam naa dañuy bàyyi rek sëñ Modou tuuti rek mu mu soufflé euh, bu ko defee moom tamit ñu daal di ñëw parce que euh, moom dafa féete ci côté théâtre te ñu gis ni léegi TikTok bi gën na dominé li nga xam ne tey ji mooy mooy aar aar aar aar dramatique bi ndax euh, bu njëkkoon boo doon décompressé wu wala nga bëgg dara da nga naa xaaral ma dem seeti sama benn kasetu théâtre wala xaaral ma dugg ci ki bisi mais léegi da ngay nekk ci TikTok bi ba finalement sax da fàtte donc kon yéen ñaar ñooñu toog du ngeen ay ennemi waaye dafa mel ni ay genre am na daal nu ngeen doxalee ci Facebook bi ba tax na kenn ku ci nekk dinaa la laaj daal ndax yaa ngi sentir sa morom li muy def ci yow par rapport yow tamit ci li nga xam ne moom nga nekk di ci di ci yëngu mm-hmm. mais nga wax ci TikTok lu am solo mu mel ne am na benn message bu am solo boo xamee setti da nga ko ci véhiculer muy benn poème nga jëmale ko ci jigéen ñi muy benn leçon de morale boo xamee seeni kenn ku ci nekk tey mën na koo jël waaye euh, baabu bu ñu xoolee ci TikTok léegi mm-hmm. dañuy gis benn façon vulgaire boo xamee seeti dañ ko ci mm-hmm. seetlu surtout nag rawatina les fii mhm. parce que bu ñu waxee sax thème bi tudd TikTok tudd tudd Facebook ba pare tudd TikTok daal di koy partagé noonu daal defaat mariage mhm. loolu euh, étape boo xamante ne après dañ ci ñëw bu fekkente ni temps bi may ñu ko mhm. mu mel ni mbir moom tamit dafa nekk mbir moo xamante ne dañ ko seetlu bu baax a baax a baax ci côté TikTok mm-hmm. dañuy gis xale jigéen ñi dañuy vulgaire li ñuy sol dafay doy waar mots yi ñuy utiliser dafay doy waar ku ci reprendre wayu jàmbur te way yi ñuy ëpp aussi di reprendre dafay nekk ay xeetu way yoo xam ne loolu aussi dinaa ci ñëw dafay nekk loo xamante ne daal des fois yow mi koy seetaan daal di jigéen doo ci sentir sa bopp dara dara yow loolu nan nga ko gisee waaw soxna Umu Xayri mm-hmm. loolu wax fa dëgg yàlla comme lu may faral di wax rek nit ki sooy roy mm-hmm. dangay roy roy tamit si ku baax ndax am na benn boroom xam-xam bu ma déggoon mu bindoon benn béyit ne maa baabukal jilu min raksin wa min ajabin mm-hmm. dafa nii mm-hmm. lan mooy mbirum jeunesse bi mm-hmm. mbirum maas bi ci jamono ji ñu toll ci bon ak ñaawteef ci ñàkk roy lu baax ndax boo seetee ba seet àdduna bi xam na lay doxalee lu bon lu xew ba passé rek. Mhm. ba ñu yaakaar ne que dootul amati rek ñu indiwaat lu gën a bon loolu lu ko gën a yées. boo xoolee ba ci colin bi. Mhm. boo xoolee ba ci yére yi. Mhm. boo xoolee ba ci comportement yi. boo xoolee ba ci nit ñi ni ñu melokaane woo rawatina jigéen ñi. man ñoo ñu lay gën a blâmer te ñooñu lay wax. parce que jigéen ko yàlla bindee moo graw bokkul ba tey ak matière bi ko góor bindee. parce que imagine toi yow nga taxaw ci sa ci devant sa écran. amoo lenn loo siy def. Mhm. lu dul nga war a copier lu baax. Mhm. nga war a véhiculer un message. Mhm. mais yow déedéet doo ko def. yow nga véhiculer li nga xamante ni ku la gis rek du la naw. ku la gis xeeb la. ku la gis doy del la. ndax nit yaay dàq sa xasu ëllëg. yaay dàq sa xasu ëllëg te image dafa di loo xam te du mës a dañ ba keroog ngay sàngoo suuf waaw parce que dafa nekk loo xam ne même bu fekkente ne message bi ngay véhiculer sax moom message bu correct la wallahi azim melokaane wuñu noonu parce que imagine toi yow jigéen yow yow yow yow yow yow ngay doomu jullit rawatina ngay doomu doomu Sénégal te ñun ñu am suñu ay réalité am suñu ay culture amoo lenn looy def lu dul génnee sa yaram génnee sa koor nga koy exhiber di ko wan xaw man damay toog ba na nit ñi su fekkee ne dañuy jaayu war a ngir ut si jëkkër kon ne dinañ lamb dinañ lamb xam nga li tax ma ne dinañ lamb parce que góor bu baax dëgg dëgg dëgg dëgg doo doo fekk jigéen bu ñuy séddoo ndax jigéen bu baax la ñuy xëccoo waaye jigéen ji nga xamante ni wax fa dëgg yàlla da nga wàcc yoon dañ lay séddoo séddoo bi mooy lan mooy góor ba la jëfandikoo mhm. ba pare jël sa numéro joxaat ko beneen góor ñu lay jëfandikoo mhm. loolu laa tuddee séddoo bi waaye xëccoo bi mooy lan ku nekk bëgg na am ku mel ni yow ku nekk bëgg na nekk ak yow ku nekk bëgg na dund ak yow mhm. ku nekk it tamit bëgg na sañ bu sañoon tey soxna mel ni yow waaye yow it nga nekk tey si réseaux sociaux yi amuloo loo siy def lu dul wane sa yaram wane sa koor di yaakaar ne que yow yaa fi ne bëgg a siw mu tax nga ne da ngay taal sa kër bàyyi. Hmm. bis bu tàkkee cëppët nga fanaane si mbedd bi. Ah, macha allah am na wax na lu am solo xam naa ne rek euh, damay daal di bàyyi rek sëriñ Modou moom tamit euh, ci li nga xam ne moom laa fas yéenee dugg moom muy ci li nga xam ne mooy euh, théâtre bi sëñ Modou. Hmm. maa ngi lay nuyuwaat bu baax ñang di hmm. kontaan ci sa ñëw fii xam naa ne du sax am jot parce que da ngaa bàyyi lu bëree bëri ah, daw ñëw waaye tey ñu ngi waxtaanee li nga xam ne mooy TikTok yow di nga koy seetaana Euh, waaw dinaa koy xool rek comme ni ko nit ñi di xoolee. Mhm. wala boog li ma koy xool bariwul. Mhm. waaw parce que man moom. Mhm. Euh, wax dëgg yàlla li may xool ci ay TikTok maanaam lu bari duma ko seetaan. lu bari duma ma ko seetaan dama koy dégg nag parce que man sama portable amul TikTok. Ah. donc bari na luy am ci portable yi man man man installé wu ma ko ci sama ci sama portable. donc ba tax na ci yeneen portable yi laa koy gisee. donc c'est des rumeurs yoo xam ne dangay ngay dégg diw def na nangam diw def na nangam. Euh, donc man TikTok li ma ciy wax mooy. xam nga li gën a doy waar ci àdduna mooy di def loo xamul lu mu doon. Mm-hmm. ñu bari dañuy def benn métier boo xamante ni comprendre ñu ko. pour mm-hmm. pourquoi TikTok am. pour mm-hmm. pourquoi internet am. pour pourquoi Facebook am pourquoi portable am. parce que loolu boo xamul lu tax mu am mun nga ci def ay ay ay ay gaaf. def ay gaaf mooy lan mooy ngay wone loo warte wone wala ngay toppandoo loo xamante ne ku la bettoon doo ko def. wala boo tàgg woon nit du la wax non defal loolu mm-hmm. bari na ci ñoo xamante ne dañuy def dara te amuñu kilifa mm-hmm. gis nga métier boo ci nekkee di ko def mm-hmm. euh, la théâtre c'est un métier donc TikTok même boo ko defee métier na sell ba ëllëg di nga tax nit dina am envie toog di seetaan TikTok ndax yow mais bari na fi ay soxna muy muy muy soxna yi nag muy muy muy góor yàlla yi ñoo ci bokk yem parce que lu jigéen di def góor a nga koy def ca wet ga mais aussi lu góor di def jigéen a koy def ca wet ñuy waxee góor gu doy waar am na soxna su doy waar am na donc ba tax na ni TikTok bi c'est des images yoo xamante ne day dem ba faw lu ci nit di def na ko xoolaat donc nit avant ngay feeñ ci télé da nga war a sa bopp ok euh, macha allah sëñ Modou message bi am na am na solo mm-hmm. waaye tey dañu mel ni TikTok bu ñuy xool est-ce que yow en tant que artiste comédien jàppoo ni mi ngi commencé di rey théâtre bi ndànk-ndànk parce que euh, ci lu bëree bëri daal euh, waaw man nag li may wax ci loolu mooy euh, mhm. Oumou Khayri mhm. Serigne Modou Niang en tant que artiste comédien di def théâtre mhm. parce que lu bari dañuy dañuy juum ci baatu la théâtre la cinéma les séries théâtre mooy li nga xamante ne dañ ko def sur scène planche mm-hmm. nga ñëw toog nit di jouer nga mm-hmm. koy seetaan c'est ça le théâtre mm-hmm. leneen li ngay gis cinéma lay doon wala mu doon feuilleton yi ngay seetaan ni muy série mais yi jàpp ma ni TikTok mën na daaneel loolu je ne pense pas parce que bokkuñu TikTok benn nit la buy ñëw taxaw wax li muy wax am ku mu toppandoo wala mu créer dara def ko moom nit ñi jaaraat ci di ko toppandoo loolu bokkul dara ak théâtre bokkul dara aussi les séries yi ngay seetaan wala le cinéma ñu da koy sentir. pour mhm. divertir ay xaritam. wala divertir am ay fansam. Mhm. def benn affaire ne mhm. nit ñu xool ko reetaan. mais na nekk ci anam bu rafet. parce que nit dina la rey après mu jéppi la. waaw parce que boo gisee ma wax la loolu au début daanañ gis ni am na ay artistes yoo xam ne daanañ ci dugg ak yenn célébrité yi mhm. mais mu dem ba ci biir ñu daal a daal di koy teg de ne surtout euh, ko euh, tey jii moom mooy suñu mooy suñu mooy suñu euh, xawma nan laa ko mën a waxee ndax TikTok ni tey jii moom la ñuy moom muy liggéey ci mbirum TikTok bari na ay questions yoo xamante ni tey jii dinañ ko ko dinañ ko ko dinañ ko ko posé mhm. mais bu ma la waxee ci ci bu ñu waxee théâtre rek de manière générale mhm. mooy li nga xamante ni tey ji tamit da mm-hmm. ko moom mooy suñu aada mm-hmm. des fois mm-hmm. ne xaaral ma jël teg cassette bi ba boo ko amulee nga ne xaaral ma dugal sama clé wala dina gudd te gis nañu léegi tamit théâtre bi yàq na ba pëccëxoo bi mi ngi ci daanaka li nekk ci TikTok bi moo nekk ci théâtre bi yaakaar naa ni loolu beneen thème lay doon dinañ ci développer mais boo gisee tey ñu boole TikTok ak théâtre dafa nekk lu nga xam ne mbir mu ci nekk daanaka li ñuy wax ne raxas ndox la woon ba ci loxo yi baree rek la yàqu moo ci nekk mu mel ni léegi théâtre bi ñu baree bari tamit noonu ñuy craché TikTok bi noonu lañ koy craché mais mmh. TikTok li tax mu gën a neex mmh. théâtre bi nga xam ni comme bu fekkente ne yow da nga soxla rek pour divertir wu nga soxla rek pour décompressé wu mmh. dugg ci TikTok danse 30 minutes wala 60 minutes mu lay indil ay yenn genre sketch yoo xamante ni da ngay rêvé rêve ba finalement yow da fàtte sax yow lan nga doon xalaat kon côté boobu bu ñu ko indee comparé ko ak théâtre nga yaakaar ni nekkul mbir moo ne bu maanaam su may dellu siwaat mooy. Mhm. man dafa am baat boo xamante ne toujours dama koy dàq. mooy TikTok deful dara la théâtre mhm. ay les séries. Mhm. séries séries du théâtre parce que boo bu ma d'accordee ci série théâtre la rek te du théâtre day indi beneen amalgame. ah lu tax nga ni série du théâtre. non du théâtre le théâtre mooy mooy li ma la wax mooy li nga xam ne da ngay toog di ko seetaan c'est ça le théâtre. théâtre mooy li ngay toog di ko seetaan en live. série yi nag li nga wax ci TikTok bi moo am ci série effectivement dëgg la parce que loo gis rek euh, am na ñu ko xam di ko def. am na ñu ko xamul di ko def am na ñu koy jéem di ko def am na ñoo xam ne jéemuñu ko defuñu dara maanaam loo leen wax loo ñu wax ko te man li may wax rek muy le théâtre muy la musique bu yeetewul diglewul ay naxaate la tiktok bii ngay def nii nit a ciy jaamu yàlla nit a ciy def loo xamante ne lu doy waar la parce que nit a ciy yar ay nit nit a ngi ciy véhiculer des messages yoo xamante ne boo ko seetaanee yow da ngay naw ki koy def da ngay bëgg a mel ni moom soo mënul mel ni moom it di nga ko roy hmm. parce que di am koo xamante dina la wax loo xam ne ci TikTok da naan non man xalaatu moo ni nit ñi hmm. seen xel yegg na fee am na ñu hmm. mentalité bi mën a éveiller nit ñi ci ñi nga xamante ne ñu ngi nelaw mais dañ ko jàppee fo te affaire bi du fo gis nga image du fo parce que dafa graaw fi muy dem la Sénégal nga koy defee mu nga Chine ma nga États-Unis ma nga France ma nga Italie ma nga Belgique ma nga Espagne mi ngi fépp partout dans le monde kon soo koy def xoolaat ndax ëllëg a tax soo demee ba mënatoo ko def boo toogaatee di seetaan sa bopp nga bañ a jéppi sa bopp. macha allah nekk na lu lu am solo Amadou. waaw man euh, TikTok mun naa ci ne euh, mbedd la. Mhm. mun naa ne mbedd la li xew ci mbedd bi la plupart la ñuy def ci suuf caméra yi ñeneen ñeneen di ko gis. Mhm. mais tey jii su ma benn question moo bëgg a posé bu ba. Mhm. tey jii ñiy def TikTok di ci boole li nga xamante ne bokk ci. maanaam wàllum saaga. wala nga sol ci loo xamante ne tey jii nii ëllëg day day dem. ba say njaboot ñëpp mën nañ ko gis mhm. tey jii en réalité yow mi xam yaa nekk ci milieu bi di ay peut-être collaboration ak nga xamante ne dañuy def lu mel noonu mhm. tey ban genre TikTok du nekk mhm. TikTok pour cent yi comprendre luñ sax lan mooy TikTok ils n'ont rien compris tey jii boo leen doon wax yow mi xam yaa ngi ci ban message nga leen mën a lancer pour ñu jéem rectifier wu xam lan mooy njëriñu réseau social bi effectivement dama siy sawar tontu kii euh, Mamadou dafa wax wax ju am solo nee na nit ki lépp li nga xam ne danga koy def ëllëg nga wëlbatiku de ko seetaanaat di jéppi sa bopp nit ki war na mooy tundiku loolu wala nga wut ku la ko supprimer nga fay ko effectivement te léegi te image yi kenn mënu ko supprimer à cent pour cent du dañ ndax yëgoo ne saa yoo dugalee image automatiquement am na di ils sont uniquement pour enregistrer waat sa image garder nit ki boo nekkee ci réseau social moo xam réseau social bu ti doon ci réseaux sociaux yi war nga am melokaan boo war a melokaanoo mm-hmm. comme sànq li nga wax muy góor ñi ak jigéen ñi mm-hmm. léeg-léeg nga seetaan TikTok nga gis góor ñoom ci da leen di xool rek wallahi azim sax da ngay rus mm-hmm. ndax lan li nga xam ne jigéen ñoo ko waroon sax imité ñoom ñooy mujjeewal bi ko ba ñoom sax ñooy gën a ndoog jigéen ka jigéen yi nga xam ne rek xam nga loolu du comédie loolu du théâtre loolu kenn xamul lu mu doon te ñoom ñu ngi yaakaar ne que ñu ngi am buzz boo liiree commentaire di nga gis ay saag rek la leen siy saaga su boobaa fan ngay mujjee boo duggaatee si bureau bi da ngay gis supprimer nañ ko fekk alors ne que c'est trop tard nit yi enregistré waat nañ ko di la ko xoolee di la ko xasee nit ñi war nañu ko loolu war nañu may tund ko loolu nit ki euh, TikTok Mamadou dafa wax ju am solo. Mhm. da ngay véhiculer message. Mhm. mais message dafa am noo koy véhiculer. Mhm. message mën nga ko véhiculer si parole. message mën nga ko véhiculer si ci ci sa ci image. message mën nga ko véhiculer tamit ci ay faits. moo xam ak noo ko mënti véhiculer sa message ba nit ñi mën a comprendre message bi nga bëgg a lancer. comme sànq wax nga wax ju am solo Amadou nee nga mbedd la. dëgg la mbedd la ndax mbedd façon bu ne ngay gis. mbedd tamit dafa mel marché boo fa demee. façon façon marchandise bu nekk ngi fa. lii moo leen tax a jóg ñii lii mooy seen intention ñii lii ak lii ak lii dafa bëri yow mii di seetaan xam nga bu baax ne am na TikTok boo ko gisee xam nga bu baax kii lan mooy intention parce que l'image parle te l'image ne ment jamais léeg-léeg nga gis sax jigéen sax mu am nu mu mel ko am nu mu indi indi benn benn benn genre royu royukaay moom te da ngay xam ne que kii daful royukaay de mm-hmm. mais kii dafa def lan mu def dafa def pour jaay boppam pour jaay boppam te lu nekk ñu ngi ko fii gis si réseaux sociaux yi rawatina TikTok te TikTok dafa dominé jamono ñu réseaux sociaux yi yëpp dafa leen dominé léegi nag moo tax ku nekk ngi siy bëgg a fës ku nekk ngi siy bëgg a wane boppam kon boog nit ki nañu xam bu baax lu ñuy def te nañu xam bu baax message yu ñuy véhiculer ak image yu ñuy dugal ndax ëllëg moo tax ndax nit danga war a dàq sa sa xasu ëllëg am am na solo am na solo mm-hmm. mais par exemple man ñi nga xamante ñoo nekk ci culture mm-hmm. tey jii nii dañ ne ba xam TikTok mën na daaneel théâtre mm-hmm. man sama point de vue dama bokkul ñaar la ñaari choses yoo xam ne bokkul. mais boo seetee euh, euh, public Ticlok moo ëpp fu public ñuy dem théâtre tey boo seetee loolu noonu. mais théâtre dafa doon loo xamante ne tey ñun suñu culture dafa jàngal ñuy yeete. di jàngale ni fi nga war a jaar fi nga war a jaar. mais je pense que ne boo duggee TikTok boo gisee sans vidéo li nga ciy jàngul lay jëriñ bëriwul. tey yéen ñi nga xam ne yéen nekk ci milieu théâtral est-ce que ñu ci jamono joo xam ne c'est théâtre bi ngeen def doo leen ko jéem adopté wu. ak euh, réseau social bi nga xamante ne moo lay permettre nga atteindre benn population boo xamante ne tey jii atteindre atteindre woon ci théâtre bi ngay def bi nga xamante ne sur scène la. Mm-hmm. Euh, waaw loolu loolu loolu loolu am na solo xam nga àdduna dafa bari ñuy fo. Mm-hmm. dafa am ñoo xamante ne ci fo rek nga leen di woon ñëw. dafa am doomu xeetu doomu aadama yoo xam ne mënoo fexe fexe fexe ba jëlee leen ci fo. Mm-hmm. donc nag bu ñu créé TikTok ñu jàpp ni TikTok fo la. ba ñuy fo ñëpp fa la ñuy daw. xam nga dama am sama benn xarit bu musoon wax ne dafa dem benn doon benn soirée. Euh, doon seetaan benn woykat. woykat bi naan ko bi ngay xale def nga lu la neex nee jour boobu la bàyyi dem soirée. un bi mi ngi Canada. Mm-hmm. mi ngi may dégg mu ngi tudd Chérif Diop. Mm-hmm. nee na jour boobu la bàyyi dem soirée parce que dafa dem ñibbi toog. Mm-hmm. mu ne pourquoi moom da doon ñëw pour fo. mais waykat bi da koo yeddaat. Mhm. ci biir way waaw ci biir way bi. mu ne moom moom la waykat bi waxal quoi. mu ne donc kon moom mënatul def xaalisam foofu <laughs> noonu la bàyyi noonu la bàyyi ba affaire bi tamit aussi loolu la. Mhm. Euh, gis nga taat. Mhm. dafa yéene. ndax dafa dafa dafay defar. dafay dajale. dafay yedd. dafay yeete dafa lay xamal sa bopp. gëm loola sa bopp. xamal la yaay kan xamal la fan nga jóge ak fan nga jëm. c'est ça le loolu moo doon njëriñ li bu njëkk bu njëkk mag ñi ko doon def noonu lañ ko doon defee mm-hmm. boo indee théâtre démb teg ko di ko mm-hmm. seetaan benn par benn amul loo ci critiqué mm-hmm. ndax lu ci nekk rek jàngat la lu ci nekk téere la donc loolu aussi euh, jeunesse bii ñu toll nii surtout la nouvelle génération il faut ñu am fu ñuy teg seen tànk am fu ñu teg seen bët am lu ñu xool mhm. bu ñu ko xoolee ni ko waa TikTok defaree borom TikTok xëy na ba mu koy defar folu ci jublu woon mhm. mais yow mun nga ci bañ a fo mhm. mun nga ci jaamu yàlla ba yee ci ay nit dimbali ci ay nit mais aussi gindi ci ay nit c'est important waaw du ci lépp la fo waaw kon daal yow dangaa bëgg a wax ni daal kon théâtre bi daal moo gën a am importance TikTok yi nga xam ne moom la nit ñi di seetaan non benn foofu théâtre moom du moromu TikTok non si du benn sax parce que message bi la théâtre di jox mhm. pour l'instant fi ñu toll nii mhm. TikTok bu la koy jox peut-être 15 pour cent moom la lay jox ñoo la koy jox est-ce que du yow tamit li ñuy reprendre ndax parce que TikTok bu ñuy xool li ci gën a dominé mooy euh, musique bi la ñuy reprendre léegi mhm. ci musique bi la ñuy reprendre xale yi nga xam ne tey waroon nañoo dem jàngi sur scène jàngi théâtre jàngi li nga xam ne mooy suñu culture ñun tàyyi nañ gis nañ ne na peut ci TikTok bi la ñuy gën a am li nga xam ne moom la moom la ñuy fol as tuut loolu sax dinaa ci ñëw ak baabu waaw loolu tamit nga yaakaar ni nga yaakaar du nekk point boo xamante ni tey ji moo tax nit ñi daw uti ci ci ci TikTok bi léegi commencé di bàyyi théâtre bi nag waaw umay xarit xam nga lu war a lool mhm. mooy ñun ñu bari ci ñun dañoo bëgg buzz mhm. man li may wax buzz ak bër ñoo yem day seey mhm. buzz yàggul nit ñi mën nañ la xam tey tey tey tey tey ku nekk dina coow mais est dina def une semaine est-ce dina def weer est-ce que dina def un an donc te te Sénégal moo nekk un pays boo xamante ne. Mhm. gis nga boo yàkkamtee siw ba siwatoo. waaw non defal beneen métier. Hmm. moo tax métier booy def rek yoral ñaar. li ñuy wax Dakar du saf ñaar waaw boo ciy dugg rek moo xam la théâtre moo xam les séries mooy le cinéma muy TikTok. Mhm. loo ciy def di ci dugg. Mhm. yoral beneen métier ci wet gi bu dee yow bës ngay wut. am na ñoo xamante ne TikTok dañ ko def métier. métier nga xamante ne lu positif lañ ciy def. boo leen gisee da leen di respecté da leen di naw le théâtre aussi muy loolu muy les séries aussi loolu mais am na ñoo xamante ni siw naa siw rek jël ma ci benn affaire ma def ko rek nit ñi xam la mhm. jeex na mais nit ñi noonu ñu lay xamee lañ lay fàtte d'accord mu nekk lu lu am solo mais euh, kii Badou bu ñuy wax TikTok dañuy wax ni dafa am xaalis buuba mhm. dafa am xaalis dafa am xaalis wala amul xaalis euh, si côté boobu nag duma la si euh, mun a tontu lu bëri mhm. parce que yàlla rek moo ma tiim ku nekk ak sa bàmmeel mhm. su fekkee tamit am na xaalis mais man de gisuma xaalis boobu ñu siy wax man personnellement parce que man yàlla xam ne ne que la ci dafuma ko xalaatuma sax pour ñu fay ma si mu mu doon dugg si TikTok hmm. billaay walaay talaay jublu ma si woon yooyu noonu yëpp hmm. dama jublu woon rek si dugal vidéo rek am message bu mu doon véhiculer rek uh-huh. loolu kese kese kese kese moom moo dugal si TikTok. après nga am sa application nga dugal ko fa. après ma am sama application mu dugal ko fa. ok mais bu ñu waxaat ba tey ci mhm. euh, ci TikTok. Uh-huh. Euh, mu mel ni comme par exemple bu fekkente ni pays Europe yi la ñoom ñoom ñu ngi ci ñu ngi ci gagné bokk d'argent loolu moom am na loo xamante ne xam naa ko ci. mu mhm. nekk lu lu leer nañu. Euh, mais yow mu mel ni bu ñuy xool ci côté religion bi nga gën a féetee te pour pourtant ndaw nga. Euh, lan moo la xiir ci nga daal di féete ci côté religion bi parce que gisuñu la ngay reprendre ay way parce que lu gën a bari wayu vulgaire yi reprendre parce que boo ah. gisee sax ma dugaleen ci mariage dafa am benn point bu ndaw boo xam ne dama ko bëggoon andi mais xam naa ne du ci xaj donc kooku dañ koy bàyyi ba samedi bee di ñëw incha allah dañ koy continuer nga xam ne mm. dinañ ci gën a mën a yaatal boole kook sama invité yi nga xam ne tubaarkàlla ñoo ngi euh, euh, True Love mi ngi may mi ngi may aussi ñu ngi koy nuyu bu baax a baax yëpp daal di wax rek ni Hmm, bu fekkente ni yow xëy na peut-être côté religion bi nga nekk est-ce que du moo tax yow bariwu ay vues bariwu ay jam ba tax xaalis bi nga xam ne mu ngi génn yow gisoo ko. waaw peut-être du ma euh, du wax waaw du ma wax déet tamit. Mm-hmm. parce euh, soo gisee li tax ma jël côté religion bi. Mm-hmm. ndax image day wër te ëllëg. Mm-hmm. lu jaru sóoraale la. soxna umu ëllëg lu jaru sóoraale la. gis nga saa yoo yëkkatee wax. bi nga xam te ne pour orienter la jeunesse. Mhm. jubloo pour orienter la jeunesse sa bopp nga see njëkk a jiital. Mhm. un mhm. boo yëkkatee kaddu ba ñëpp gis ne que yëkkati nga kaddu. kaddu bi nga xam te ne pour defar la pour orienter. ëllëg boo naree jubadi fàttali ko ne que yëkkati wala nga kaddu buy defar. jubadi du la yomb. est yaa ngi dégg bu baax. fu may waxee li ngay wax. nga xam te ne que ëllëg jubadi du la yomb. te ñun comme ni nga ko waxee ay jeunes lañu. jàng nañ école jaar nañ daara ja mhm. waaye man sama image man rus naa mhm. di reprendre li nga xam te ne ëllëg dama si am gàcce mhm. wala ëllëg fu ma dem kenn du ma nawloo ok damay joxe benn anecdote am na sama benn cousine bu frère am waroon takk benn benn kenn ku jigéen loolu yàggul temps rek la woon bu dara dafee ba mu waxante ku jigéen ki ba jour bu mu ko war a présenter famille am indi ko moom ay sëram si boppam. Mm-hmm. ñoo ko ne su fekkee kii ngay sëyal. billaay dinañ dogoog yow àdduna ak alaaxira ñu dem jël yaay ji wax ko ne que yaay booy su fekkee da ngay bàyyi diw sëy ak diw. Mm-hmm. dog ak moom àdduna ak alaaxira ndax lan ndax ku jigéen ki image bu mu wan bu mu doon wane. Mm-hmm. si réseaux sociaux yi. imaay la moom ci ne ku ko gis da ngay rus. Hmm. wallahi azim loolu moo yàq sëyu ko jigéen ki tey ba tey mu ngi koy regretté hmm. waaye c'est trop tard hmm. ndax dañu mujjee jël image bi wan ko yaayu ko jigéen ki yaayu ko góor ki liñ ko mujjee wan yaayu ko góor ki mu ne kon sama doom kon si lii la duggoon sama doom day saan kon moom de duggoon na foo xamante ni naru si woon am doom yu barkeel ndax yaayam moo ndax ndax ki mu waroon takk la moo tax melokaanam kon nii la melokaanoo macha allah loolu am na nekk na lu am solo xam naa ne loolu sax mooy li nga xam ne la ñu fas yéene waxtaane samedi prochain incha allah parce que nee naa leen thème bi continuité lay doon tellement que dafa riche bari ci yoo xam ne set ni war nañ ko ci mën a wax xëy na rek ci ay waxtu yi nga xam ne moo ñuy dese ñu war koo waxtaane lool moom nekk na li nga xam ne franchement dafa dafa am solo waaye yéen ci seen biir entre yéen ñi nga xam ne yéenay def ay tiktok Euh, naka ngeen yi naka ngeen naka ngeen yi dundee parce que dafa mel ni am na benn genre rivalité boo xam ne c'était mi ngi ci seen biir. Mhm. Euh, rawatina nag diggante jigéen ñi ak ñi nga xam ne ñooy euh, jigéen daal jigéen ak jigéen. ak sélection yi nga xam ne tamit def nañ ko ci année bi xaw ma ndax tu es au courant ou pas. Mhm. ki nga xam ne moo jël meilleur tog-tog bi muy kii. Faa Faa dara mhm. voilà seen liggéey ak seeni relation naka la demee. au fait loolu dama si sawar tontu macha allah Faa Aidara nag xamante wu moom. c'est à travers de TikTok laa ko xamee. Mhm. mais macha allah li tax ma koy wax macha allah parce que nit la boo xamante ni boo xoolee ay mhm. image am bu vulgaire. waaw amul si benn image bu ñaaw. Mhm. amul si benn reproduction bi nga xamante ni boo ko déggee doo ko nawloo. da moom da nga koy xool image am xool ay TikTok am. xool ay challenge am rek da koy naw. ba yàlla tey moo ko may tey lii. waaye ñi nga xamante ni ñoom ñu ngi def contraire bi. kii siwuñu. sëñ Maodo wax na ko. Mhm. Mhm. siwuñu mhm. kenn xamu leen. lu dul ay saaga rek jël seen image tasaare ko fu nekk. ku leen gis ku leen gis du leen nawloo. moo tax dafa di loo xamante ni il faut nit ki. nga nekk nit il faut nga am savoir vivre. savoir vivre nag si melokaanu doomu aadama la. si nooy waxee nooy defee. ak nooy comporté woo. kon yéen yéen nekku leen boo xam ne yéen ngi déggante parce que ku mel ne asulaaw be moom moom de moom yëfi law bi lay def moom. <laughs> moom moom moom moom moom siw na lool. te moom tamit dafa créer li nga xamante ni moom moom moom moom moom moom jàmbure mais moom ay waxu boppam lay créer ba nit ñoom ñoo koy roy. waaye li muy def vulgaire na de tamit. waaw waaw waaw bon côté boobu nag du ma sori parce que man moom du ma ko suivre nag lu bëri. li tax du ma ko suivre ba parce que damay gis reproduction rek laay gis nit ñi xale yi di ko def challenge. sànq suba wax naa la que nee naa la soxna Umu ñi nga xam te ni yàlla dafa leen nattoo ñu siw. nit war nañu xoolaat seen melokaan ñoom bu baax a baax a baax am nattu am nattu war nañu xoolaat war nañu xoolaat seen melokaan bu baax a baax a baax mhm. ndax on a une jeunesse inconsciente mhm. une jeunesse bi nga xamante ni ñoom lu ñu gis pour ñoom looloo baax alors ni ko du lépp a baax du it li ngay toppandoo yëpp a baax mhm. li tax li ngay toppandoo yëpp baax na du yëpp a baax du yëpp a bon du yëpp bon du yëpp a baax ndax nit ki selon si yow ni nga ni ni ni ni ni nga ni nga melokaanowee. Mm. su lay toppandoo si melokaan boobu lay jël. dëgg la macha allah nekk na lu lu am solo. ndax bu ñu waxee daal ni Facebook euh, mbedd la. kon mm-hmm. boo jaaree ci mbedd daal yaakaar naa da ngay sëgg for ko. Mhm. boo moytul du doon lu baax même bu dee alali jàmbur boo ko jëlee mën nga koo delloo kon dafa am li nga xamee seet ni mhm. taxawaay la boo xamee seet ni nit ñi war nañ ko taxaw mu mel ne li moo ñu desee mhm. mu mel ne Amadou dafa posé sëñ Modou question bu am solo xam naa ne ci loolu lay rebondiraat sëñ Modou vous les artistes ak man mii toog euh, nga yaakaar ni jotul aussi yéen tamit ngeen jéem a li nga xam ne moom ngeen di def ak réseaux sociaux yi waaw maanaam jéem xool seen liggéey naka ngeen koy jàllalee ci li nga xam ne tey ji mooy réseaux sociaux bi ba nga xam ne daal na li nga xam ne moom ngeen ci bëgg euh, di ngeen ko am di ngeen ko am incha waaw xam nga Euh, réseaux sociaux yi moom am na ñu ciy liggéey. Mhm. Euh, parce que boo ci demee mhm. di ñu ci fekk ay séries yu baaree bari bari. bari na mhm. séries yoo xamante ne yegg seegul télé. Ah, mi ngi ci réseaux waaw mi ngi ci réseaux sociaux yi di daw xaju sax télé. donc liy daw ci réseaux sociaux yi ci ay séries moo ëpp fuuf. te yooyu tamit ay genre suspense lay doon yoo xam ne yéen a koy dugal. si si si yu ñuy def par exemple nga nga nga def benn spectacle au Sorano wala Grand Théâtre après ñu jëlaat ko. daggat ko def ko ay 10 minutes 5 minutes ça dépend. ko ci réseaux ñu xool ko. donc parce que loolu tamit chance la mhm. euh, ñi nga xamante ne peut-être amuñu woon chance su dem mhm. wala wala wala amuñu woon chance su seetaan li nga doon def lu mu doon mhm. ñoom mun nañ koo gis à travers ci biir réseaux réseaux sociaux yi aussi quoi loolu mun na nekk mais aussi tamit mën nañ def ay série yoo xamante ne te juste pour réseaux sociaux yi lay doon dëgg la pour jàngalaat nit ñi ñu fàttaliwaat nit ñi ñu xoolaat seen bopp ñoom ñooy ñan parce que ki ngay xool di ko roy war na la woon lu baax loo koy royee dëgg la moo tax booy def dara nga xool ko que ki lay tax tey sénégalais problème bi ñu am moom mooy ñun dañuy def roy dàq. roy dàq. Mhm. Sénégal moom lu mu la roy dàq la ko yow mi ko defoon. ci lu bon waaw surtout. roy dàq ci lu bon surtout ci lu bon. Ah. ñu mm-hmm. roy dàq ci lu baax. waaw lu bon rek. effectivement daanaka li ñuy roy ci lu baax. Mm-hmm. la ca bari bariwul. bariwul mm-hmm. waaw. waaw kon daal jàpp nga ni yow message yi nga xam ne moom la ñuy véhiculer muy TikTok yi nga xam nekk yooyu noonu lu ci bari daal. dafa nekk loo xam ne ñi koy nekk xëy na peut-être nekkuñu ay professionnel ci li nga xam ne moom la ñuy def. waaw loolu am na. xam nga gis nga nit lu muy def te jàng ko. erreur la ciy def. TikTok nga bëgg. mais demal nga jàng ko ba xam lan moo tax TikTok jóg. Mhm. ak yow façon bi nga bëgg a def ban façon la loolu il faut nga xam ko yow mi koy def. Mhm. muy muy artiste biy joué te xamul li mu bëgg a joué mooy lan. Mhm. donc soo bëggee wax te xamoo looy wax di nga wax erreur. te li ñuy wax rek war wax bal la boo xamante ne bu xasee ba génn dootul dellu siwaat kon préparer sa bopp ci wax ji génn. te dootul dellu balaa nga koy wax lu mu doon. macha allah. xam naa kon loolu rek dinañ ci ñëwaat mu gën a yaatu di wax rek daanaka suñu waxtu nag dafa jeex parce que 8 minutes rek moo ñu defee euh, damay bàyyi Amadou rek mu daal di xam ne mooy dernier moom après ñu daal leen di bàyyi ngeen tàggatoo. Mm-hmm. bu ko yàlla dogalee ci kattanam ak mbaaxam euh, rek euh, bu ñu fi bàyyee le samedi prochain incha allah ñu teel a ñëw te bañ a tardé parce que tey dañu jël 15 minutes yoo xam ne de retard moo tax daanaka émission bi mënul egg Amadou. waaw dama rebondir ci kenn xaw moon bi ma duggee TikTok xam naa ci ku nekk. Mhm. am naa ci façon gel bu nekk. Mhm. dañ may envoyé xaalis dañ may def lu nekk. Mhm. te dëgg la le gars il est rigolo. mais moom peut chance am ci loolu la nekk. mais li mu ciy def yëpp boo seetee c'est c'est comique. doon loo xamante ne day def éveillé wul yeewul kenn mais. c'est comique quoi da lay divertir. tey ñu bëri ñoo xam ñu ngi ci di ci def lu bon dam leen di lancer message ne ñu xool baax la ñuy def. parce que image fu nekk mën na dem. di fa jaaree di nuyu ñi nga xamante ne di sant ñëpp di gërëm na amaa benn copain neen naa ko mooy dédicace. Hmm. mu ngi tudd Ron John neen naa ko mooy dédicace tey. xanaa kaas AGT nga koy moom kaas ko bokk. waaw ma may ko dédicace. jox ko jox ko AGT bi waaw. waaw nee na ma jox ko AGT bi <laughs> Ron John Tado maa la may dédicace. <laughs> waa di nuyu ñëpp di di di gërëm ñu fi di doon déglu ñëpp. <laughs> di ñuy invité yi nuyu xeer yi mhm. di leen jox dig daje am samedi incha allah ci thème bu gën a neex bi ñu continuer ko. Mhm. parce que am na loo xamante ni tey jii dañ ko développé mais xaju fi. xaju fi xaju fi euh, dañu am loo xamante ni lu bari loo xamante ni dañ ko tënk. Euh, rek euh, mooy loolu waaye rek xam naa ne beneen yoon dinañ ko gën a yaatal fekk du ñu am retard bi ak yooyu baabu. Mhm. Mhm. ñu wax la rek bul joxe solution parce que ñëwaat incha allah bu ko defee ñu gën ko ñu gën ko yaatal parce que noonu lay la rek nga tàggatu ak mbokk yi nga xam ne ñoo dëgg la dëgg la ku ndawtal mm. ku bëgg a mm-hmm. mm. ba dee dara du génn mm. te boo mooy tuulee sax waaw xaalisu ndawtal boobu mooy soppali ko doon jaxal yàlla nañ si yàlla musal dégg loolu macha <laughs> allah kon message bi may bi may lancé rek mooy euh, di ko jëmale si góor ñi ak jigéen ñi mm-hmm. jigéen bu toll si sëy mm-hmm. nañu xam ne que lunette mooy verre correcteur moo xam lu mu munti doon. Mm-hmm. mun na rafet. Mm-hmm. te du jekk si kanam. Mm-hmm. waaye góor yi tamit nga xam si ne ñu ngi toll si ut jabar. nañu xam ne que tamit dal mun na rafet ba noppi. te te te du la jot. te xat. message boobu laay véhiculer tamit di nuyu euh, sama xarit. Mhm. sama doomu ndey. Mhm. mooy euh, sëriñ Abdou Khadir mooy jiili. jiili yàlla mu ngi jaarale sama ñëw fi ak sama xamante ak yow si moom. moom mi nga xam di sonn si man. waaw macha allah nee na sax man mooy sama manager. dégg loolu waa ko kon nangu naa nga nekk sama manager. ak a doot wallaay mais bon maa ngi nuyu ñëpp. di nuyu sama soppe yëpp di nuyu eh. sama waa kër ak. Eh. samay waa koñ ak samay dëkkandoo ñëpp. di rafetlu émission bi incha allahu rabbi. di leen eh. jox dig daje ba beneen yoon incha allahu rabbi. jërëjëf waaw kay moo du Niang le grand artiste. de waaw Oumou Khairy bàyyi di wax le grand artiste. <laughs> damay jàng rek. <laughs> waa di jaajëfal sama gars yi ma émission bi est-ce que réellement yow ñu ngi la doon déglu tamit sëñ Modou. ah waaw waaw ah? léegi man sama gaawu Afia yi xam naa ne ñu ngi déglu. gis nga mi ngi noonu de. waa Afia maa ngi leen di siyaar di leen jaajëfal ci déglu bi nga xamante ni yéen koy def. <laughs> Euh, di jaajëfal aussi waa Arcor Sud de Dakar waa Géej mhm. Bambulaan. Géej Bambulaan euh, di jaajëfal aussi waa Médina fi nga xamante ni man falaa laa Euh, maa ngi leen di nuyu di nuyu auditeurs yi nga xamante ne ñoom ñëpp ñu ngi safoo rajo bi nga xamante ne moom mooy Afia di leen jaajëfal. Mhm. di am mbégte di ñëw ci émission yi mel nii ndax dafa am solo. Mhm. ndax émission dafa war a am njëriñ. Mhm. ba nga xamante ne ki koy déglu sax du doyal. donc dans genre thème yi dañ koy soxla. moo xam ci télé yi la moo xam ci rajo yi la dañ koy soxla c'est important. parce que boo xoolee rajo yi ak télé yi li ñuy teg ci foo dafa bari. donc léegi nag bu ñu tegee foo nag ba ba doyal léegi nag nañu teg li nga xam ne dëgg la nit ñi mun ñu dégg. nit ñi dañu war a dégg parce que jamono dafa toll foo xamante ne foo ku nekk di dégg sa morom mhm. ci làkk bu mu la mën a làkk foog mu déggante mhm. kon donc yàlla na def jàmm ci rajo bi mhm. Euh, di jaajëfal sama sëriñ di sëriñ Jili Mbàkke borom Ixsaan di ko ñaanal tawféex ak taysiir di ko ñaanal mboolum julit di ko ñaanal murit yeeg Baay Faal yi euh, di jaale sama mbokk Baay Faal yi nga xamante ne suñu Baay Njaga Jóob boobu nga xam ne ndeysaan euh, suñu borom maa ngi siyaar ñëpp. jaajëf. ok waaw euh, émission bi li ma ci bëggoon a wax ñu bëri ñu ngi may envoyé message nee na neen proche émission bi dafa neex trop. dëgg la di fa jaaree di nuyuwaale Dali Ndiaye moom mi nga xam moom bokk ci mu envoyé message ak ñëpp. Mhm. di ko bu soobee yàlla. incha euh, demee dinañ ko eggale yoo xam ne sax yu baree baree bari mhm. parce que c' est l' moo taxoon ñu toog fi ndax ku mel ni sëñ Modou Niang rek invité ko la même chose. Amadou moom dafay ànd ak man ci émission bi saa su dafa bokk ci émission bi waaye moom rek daanaka xam-xamam tey ji mënoon na ko développé ci li nga xam ne tey ji moom la ñu am ci heure muy une heure de temps bi euh, boo gisee nag tey ji tamit ñu daal di fii indi li nga xam ne mooy TikTok ak théâtre dañoo dem ba xaw mel ni luy niroo mais bokkuñu mhm. euh, te xëy nañu bari tamit war nañ koo xamee parce boo xoolee ñu ma ka léegi kenn gisu leen donc TikTok nekk na mbir moo xamee sax ni daanaka euh, artistes yi nekkuñu ci mhm. parce ñoom dañoo am seen mbiri bopp di ko doxal ñoom aussi mu mel Euh, jox seen identité ñu nekk te ñoom tamit di ko doxal muy ñaari mbir yoo xam seet ni dañoo dem bay xaw a nuroo bokkuñu boo gisee ñu teg fi ñaar ñii kenn ku ci nekk wax ci li nga xam ne moom mm-hmm. ñuy waxtaane mariage yaa ngi ci biir mm-hmm. bu baax a baax te nag lu ko waral ak lu ko waral parce gis nañ ni tamit lu ci bari daal daal en tout cas dinañ ci ñëwaat samedi pour gën ko ci yaatal bu baax a baax di jaajëfal ñëpp comme ni ko sëñ Modou waxee ñu ngi koy jaalee euh, waajuram woowu noonu di kilifaam di sëriñam tubaarkàlla wàññeeku euh, mooy suñu bayfaal boobu mm-hmm. ndeysaan Baye Aliou Diop waaw Baye Aliou Diop ñu seetaan ko seen TV mu def lu am solo ñu euh, a nga la ñàkk muy xam ne moo nekkoon ci technique bi mooy man ànd ak man toujours ci émission bi di jaajëf jaajëfa tamit ñëpp ñi nga xam ne toogoon nañ ci déglu salon Coumba Gawlo Ami Ndiaye ma nga xam ne moom laa fa bàyyi Tamadina mi nga xam ne moom ay jaay añ bu neex tubarkàlla euh, restaurant Tamadina maa ngi koy nuyu bu baax baax moom aussi ah di nuyu tamit euh, waa Sodav sëñ Maodo suñu mbokk yooyu mm-hmm. ñaa maa koy nuyu bu baax baax di nuyu tamit euh, Mame Mbaye Ndiaye ah sëñ Mbacke Ndiaye ñoom ñëpp aussi ñu ngi bàyyi émission bi xel ñu ngi leen di nuyu di nuyu waa HLM Grand Yoff yëpp di leen jox dëgg daje rek incha allah ba samedi prochain di leen wax les continuités lay doon ba jàngeen jëf. seen émission li ci jamono lal waxtaan dolli yaakaar samedi ju ne dale ko juróomi waxtu ci ngoon fenn rekk la Afia FM 93 point xayri ci Afia FM woote leen ci 88 628 05 05 88 628 05 05. ak Afia FM waxtaan gindi askan. waaw ko di leen gaar ko di leen gaar su ko newul gaar du ma yegg